alors eh, bëgg feeñ télé toj na réew mi bëgg siiw toj na réew mi bëgg am buzz également toj na réew mi ba tax am ñoo xamante ne jaral na leen lu ne eh, eh, Adja. waaw doo ni ñu ko waxee noonu la moom colonel bëgg feeñ télé daf leen jaral lu nekk ba tax na dañuy xool léegi ñi nga xam ne la plupart ñoom ñoo nekk ci télé yi dañu naan ñi amuñu expérience wala du expérience sax mais amuñu dara ci seen bopp yi wala seen xel kopp moo ci nekk. Mhm. te dañu seetlu ni que ñoo ñoo fees si suñu télé yi buñ ko waxee dinañ jël exemple yu yu bari yoo xam ne mën nañ ko kii. di nga gis ñoo xam ne dañ leen di xas wala genre nga génn wax benn gaaf ñu ni nit ki xamul dara alors mhm. que liñ naan les hommes qu'il faut à la place euh, qu'il faut mhm. dañuy wax aussi les femmes qu'il faut à la place qu'il faut mais léegi seetlu nañ ni que euh, télé yi dañu am tendance à boo rafetee euh, xees dañ lay jël euh, teg da ci kanam écran yi au détriment de ñi nga xam ne jàng nañ def nañ seen formation ba ba ba war a mën a toog ci audiovisuel donc c'est un problème majeur boo xam ne nemmeeku nañ ko temps yi ba pare li ma si gën a metti léegi milieu bi suñu milieu bi dafa dafa am li ñu naan ñuy ñu rax ñi gàmm ak ñi raas dem bokkuñu mais ñi gàmm ci boppam ñoom ñoo commencé yàq affaire bi. Mhm. parce que bu fekkee yow danga nekk directeur euh, de programme wala nga nekk koo xam ne yow yaay jiite télé euh, danga nga war a saytu xool ñi nga xam ne ñoom ngay teg euh, sa image boîte ngay jaay mhm. mais bu fekkee parce que nekk xale bu jigéen moom tamit bëgg na génn parce que euh, boo génnee télé dañ naan di nga am visibilité non seulement mais xaalis bi ci lay gën a kii mm. parce que di may am ay fans yoo xam ne dañ lay may xaalis di nga am ñoo xam ne surtout moodu moodu yi nga xam ne ñoo nekk extérieur ma leen di nuyu de passage di leen sànniwaale xeer nañuy bàyyi tout le temps bu ñu gisee nit télé di yónnee seen xaalis tout le temps dama la bëgg danga ma neex et tout après ni xale bi daf ma arnaqué wala xamul dara wala toj bi nga xam ne def na ko ci télé bi mu nekk un phénomène euh, boo xam ni lëmbe na euh, jamono ji su ma jugee ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci télé yi damay dem ci musiciens yi dañuy la plupart dañuy am problème bëgg visibilité ñoom tamit mhm. mu jaral leen temps yi gisoon nañ benn artist euh, boo xam ne amoon na problème ak euh, benn koo xam ne ci média bi la nekk yéen a gën ngeen ma xam. Mhm. Euh, li ma bëgg wax mais lu problème c'est que euh, du moom laay cible mais dafa am jigéen yoo xam ni dañuy bëgg tëll par exemple ñu def seen clip wala ñu def seen benn son. Mhm. bëgg visibilité donc da leen di jaral ñu dem ci directeur de programme yi ñoom ñi nga xam ne dawuñu léegi dañuy am euh, ci seen biir bureau ay canapé. wala ay lal yoo xam ne ci ginnaaw lay nekk donc du coup su fekkee da ngay ñëw bëgg sa sa clip jàll wala nga bëgg ñu invité la ci benn plateau donc euh, da ngay jaar euh, ci bureau waa ji mhm. euh, doog a am visibilité wala ñu doog a jàllale sa produit mu nekk loo xam ne c'est grave doy na waar doy na waar bu baax en tout comme ni nga ko waxee léegi moom siiw li mu jaral xale yu jigéen ñi dafa bari mais est que nekkul sénégalais justement ñoom ñooy bëgg euh, que ñoom ñoo ñoom ñoo bëgg lool que ñuy jël jigéen yu rafet yoo xamante ne même bu ñu amul rien dans la tête esthétiquement parlant ñoom nañu rafet ñu ñu teg leen fa da ngay gis des fois euh, même ci ci journal télévisé yi nga xamante ne heure yi nit ci gën a ciblé on préfère xale yu jigéen yoo xamante ne teint clair très très belle et cetera marketing la peut-être. marketing la mais yow yaa ngi foofu ni yaa ngi def lu baax mais yaa ngi suuxal sa boîte au fait bu fekkee ni que xale bu jigéen bi ki nga fa teg amul expérience du man expérience mais amul dara si boppam maanaam jàng ko wala xamu ko wala danga ko jox benn feuille ni ko lii lii ak lii ngay wax donc da ngay sóoraale tout le temps cas d'urgence dina am. foofu ngay xamee ki mën ak ki mënul mhm. mais léegi da ngay gis euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoom ñooy prendre soin d'elle et tout ça mhm. côté esthétique bi mhm. la ñuy gën a primé Sénégal que que côté intellectuel bi donc da ngay gis ni que ñooñu ñooy gën a am fan sax plutôt que ñi nga xam ni am nañ expérience jàng nañ xam nañ problème euh, cas boo leen tegal dinañ ci mën a xuus mais ñi nga xam ni euh, tendance bi bi bi xew léegi mooy bu fekkee ni yow rafet nga xeesal nga tu es tu es jolie à voir yow yaay am beaucoup plus de de de possibilité tekki ci milieu bi. plutôt mhm. que ki nga xam ne euh, moom galère na ci dox na ba tànkam pënd et tout ça. am na foo yegg moom franchement euh, am na fu ñu émission bu ñu lay teg wala nga war a jàkkaarloo kilifa yoo xamante ne esthétique du la ci génne. non waxu toj toj ci la ñuy gis ni que la plupart toj toj rek la la ñuy wax bu ko defee ñu ne diw la ma wax ca télé ba wala. c' est un problème c' est un problème majeur ba pare ñoom au fait ce sont des victimes te xamuñu ko par exemple tey ki ki la indi teg la ci télé. moom victime ba kay mooy ka dem jàngi yore ay diplôme am di déposer ñu ne ko déedéet ndax rafetoo. non mais ki nga xam ne dafa rafet sax moom victime la en quelque ah. sorte parce que dañ koy utiliser image am la ñu soxla. Mhm. soxlawuñu nit ki wax na toj toj mu ngi ridiculiser boppam wala amul benn am na ñoo xam ne dañuy dugg ci milieu bi juste pour un laps de temps. Mhm. dugguñu ci pour. waaw pour jàll ci leneen. waaw bu dugguñu ci par passion wala par kii parce que da ngay gis koo xam ni que amu ci mari voilà cherche mari <laughs> waaw cherche uh-huh. ngay wax def si def si gën a bëri parce que la plupart da ngay gis ku commencé génn télé tuuti yi commencé yëg sa bopp uh-huh. oto yu baax yi yaa koy dawal euh, dot yu yu foor yi yow lañ koy jox doo ko nangoo génn ak n'importe qui donc euh, sa sa entourage sax da ngay jéem a xoolaat naka naka naka lay demee <clears throat> xam nga xam nga télévision Euh, danaa ko waxaat du neex tamit euh, ñu bëri euh, télévision dafa laaj ay critères mm-hmm. et pour dire vrai au Sénégal ñun dañoo maturagul pour télévision il faut dire la vérité la vérité se trouve là-bas parce que xam nga télévision lu doy waar la mm-hmm. comme ni li nga doon wax léegi yow mii fu mu nekk nii maanaam ñi nga xam ne mooy ñoom ñooy jël nit ñi leen teg au devant de la scène. teg leen ci émission jox leen journal jox leen nangam liñ nga wax boo respecté critères yi pour benn présentateur wala présentatrice nga respecté critères yi soo ko defee doo am problème waaye boo jëlee koo xam ni maanaam amul bagage rafet na nangam parce que xam nga. Euh, dangay toog rek ci kër da ngay toog exemple nga gis benn émission nga gis ñun góor la plupart ñun góor yi la. Mhm. dañuy toog di waxtaan bi saa ñu ne non euh, waaye non kii yeewu su. <laughs> des fois dañuy. ñu dañuy waaw dañuy toog noonu voilà. mi ngi koo xam ne sax mën na la lay la kii moom boo taalee télé bi oh. oh xale bi dafa moom voilà yooyu xam nga. wala info yi muy wax intéressé wu ma. mais mën naa toog jàkkaarloog moom. mën koy dégg souvent yooyu day am. Mhm. léegi nag euh, boo jëlee nag koo xam ne maanaam euh, euh, rafet na am na bagage. Mhm. nga teg ko bu boobaa maanaam yow li ngay def moom mooy da Euh, man audimat bi danga koy am. mais bu dee da teg koo xam ne amul bagage. audimat bi du yàgg commencement la rek. château de carte la. day toog si ak benn benn moment boo xam ne ñu koy neen wuy wuy wuy xale bi rafet après mais au fur et ñu koy déglu muy wax. nga xam ne boobu bi dara nekkul dara nekkul ci. gars yi nag zappé dem feneen loo tax na nag ci ñii di jël euh, ñooñu ñii di jël euh, jigéen ñi dañu wax a xool parce que dafa am. Mm-hmm. jigéen ci télévision dëgg la neexul ba neexul nag. télévision monde bi yëpp la bu ñu teg ci seen télé ku rafet lañ fay teg. waaye nag ku rafet ak am bagage. na am euh, benn balaa bagaay boo xam ne bu toogee am culture problème bi yëpp lenn la culture la. gis nga culture. culture gars yi dañ koy caaxaane. mais bu dee da ngay wax ci benn domaine boo ci amee culture de xoolal lakk yi nga amoon yëpp day yooyu yëpp day kii. Mm-hmm. li ngay def. comme tey yow eh, émission yow rubrique bii ngay def gis nga boo dee ba nga xam ne nga maîtriser ko <clears throat> am culture bi mais booy wax. booy wax mais non day. yow ngay wax ci benn mbir amoo ko amoo ci culture am nga dem ba siyaag parce que ki lay seetaan. ñi lay seetaan ñu ci bëri ñoo la gën a xam yow li ngay wax. loolu ngay wax nag léegi nag ñoom ñu ngi toog ne seen seen kër naan eh, xoolal li muy wax xoolal li muy wax mais à la fin kenn dootu la déglu mm. kenn dootu la seetaan doo capable la bu ñu la posé benn question ci biir rubrique bi comme par exemple yow nga wax benn question nga réer mais yow ki lay seetaan lay kii. donc <coughs> donc ce qui veut dire lenn rek moom moo am euh, problème moom mooy que kon respecte le critères. Mm-hmm. nit tamit bu mu euh, jëlee télé di koy fooye mm-hmm. di ci ut jëkkër. Mm-hmm. surtout jëkkër <clears throat> boo ci wutee jëkkër di daanu. xaalis. di nga daanu da ngay daanu complètement parce que coach dafa am euh, benn benn xeetu du ma ne xeetu nit mais dafa am façon góor boo xam ne dañuy am xaalis soit ñu nekk extérieur wala ñu nekk fii Sénégal dañuy xëy yor seen télécommande di zappé présentatrice la ñuy wër wala koo xam ne chaque jour dafay génn télé ñoom mhm. déjà na dangay da yor seen benn liste boo xam ne ku ci nekk ci yéen dinañ ni diw. Khady sama sama copine la woon Khady maa ko invité woon reer Fatouche euh, sama sama sama sama kii la woon am na fu ñu jaar donc ñoom seetuñu ki ku génn télé la ñu bëgg. en fait ils aiment te présenter comme si trophée nga woon par exemple dire euh, comme t'es marié mhm. euh, Fatouche laay génnal moom mhm. mooy def dox dox bi euh, Walfadjri pour mhm. juste pour pouvoir se glorifier. léegi Fatouche moom bu fekkee euh, dans sa moom également loolu moo ko tax a jóg cherche mari wala voilà ñaar yuy retrouver télé la plupart genre yooyu dañuy xaalis donc du coup boo ñëwee à à première vue dañ lay xëpp xaalis bu bari yow bu fekkee ni que yow euh, tu n'es pas assez intelligent mm-hmm. xam li la li la tax a jóg ak sa liggéey da ngay tomber ci piège am bu jógee ci ci comme am na fatouche day dem jàll ci sanu donc bu demee ci sanu ni ko non man Fatou euh, sama copine la woon wala daan na fi ñëw et tout mhm. accordé lu ma ko importance te li may wax c'est vrai am na ñoo xam ni ñu ngi koy def te xam nañ li may wax mhm. euh, dafa nekk loo xam ne ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci milieu bi bàyyi wuñ ci xel mhm. euh, te te te li nga ci xamul coach léegi casting yi dafa rax casting bu fekkee yow dañuy def casting euh, ki la gën a mën sol lu sexy mhm. ak ki nga xam ne xam nga ko sa copine la doo gis gars yi léegi bu ñuy jël ci télé du ñu jël n'importe qui seen copines yi la ñuy jël mhm. di di leen du ñu def casting sax dañ lay ñëw rek teg a imposé la ci ci kanamu ni ñi mhm. donc du coup lu lu nit ki def mu normal wala mu ñàkk normal doo doo am droit wax kenn du boo critiquer nit ki sax bu ëllëgee on peut te mettre euh, à pied wala nga nga am benn problème boo xam ne kii may njëkk a ci loolu li ma ci gën a marqué moom mooy école de formation yu ci bari soo ñëwee di wax que ni par exemple nga ne benn filière bi laa tàmm boo xawee rafet dañ la naan yow defal communication wala mm-hmm. journalisme nga dem télé. parce que yow peut-être rafet nga moom moo tax mais bu fekkee kooku loolu bëggu ko nag su mm-hmm. fekkentee moom loolu nekkul objectif am nekkul loolu la bëgg a def yow nga def loo ko ko da ngay xool kuy def communication xaw a ñaaw dañ lay loo ci matière bi dañ la ci découragé loo dinañ la wax lu nekk pour que nga changer matière parce que dañ bu fekkente télévision nga bëgg a def soo demee demee ba am say diplôme après da ngay sonn parce rafetoo mhm. mais euh, télévision comme li nga wax léegi coach c'est très important su fekkente euh, taar bi la benn instant lay taxaw au fur et à au mesure suñu demee ba xam ne carrément yow sa bopp bi dara nekku ci dañuy bàyyi parce que sénégalais euh, moom moo bëgg lu bees ci ay bëtam moom moo bëgg aussi lu rafet mm-hmm. Mm-hmm. donc même xale góor yi même bu dee même kanam bi la ñuy gis chaque jour te tamit li ngay wax amalu leen njariñ duñ fa taxaw di ko xaar mm-hmm. mais bu fekkente ni da nga cumuler les deux soo ñëw même soo rafetul nga defaru ba nga xamante ni ñi lay seetaan war nañ la xool parce que tamit bu waxee télévision bët la ñu wax avant ngay ngay ngay déglu bët mooy boo taxawee nit ci di la seetaan seen seen xool di neex du yeewu fajar di jàkkaarloo benn yenn genre kanam yi toute journée bi yëpp dafay metti donc su fekkente yow xaw nga xaw nga gisaable mais c'est vrai su fekkente xaw nga xoolaable ba pare li ngay wax nit yi mën nañ ko dégg laal mën nañ la jël teg la parce que bu fekkente yow loolu moom mooy say métier aussi loolu nga bëgg